sànq bon nous sommes une équipe compétitive est-ce que réellement au regard de tout ça paramètres yooyu presque deux ans après nga xamante ni joueurs yëpp peut-être na nañu wax ne euh, ñu benn atout euh, exceptionnel bu ñu amoon il a deux ans est-ce que mënul peser si lu nga xamante ne moom moo di euh, moom moo di performance équipe bi si Côte d'Ivoire. xam nga des fois nit ñi bu ñuy natt champion yi dañuy juum. xam nga aujourd'hui man sañu ma ni championnat boobu ñoom Kalidou di football ak ñoom Sadio Mané di football. Mhm. championnat bu yées la championnat européen yi parce que dama man pour man c'est le football qui est en train de se déplacer xëy na sax ñu ñëpp daf ñu bett même européens yi daf leen bett. lan moo leen bett. que le football aujourd'hui se déplace vers les pays du golfe yooyu ngay wax xam nga pays les pays du golfe lu ñu commencé. Mhm. ba ñëwaguma ci question bi. Euh, dañu commencé ñëw di sponsoriser ces championnats là Flight Emirates excusez-moi plus européens yi di sol seen maillot ñu jékki-jékki di jënd club yi mhm. les présidents de club deviennent des gens du golf ñu jékki-jékki jël football bi di ko yóbbu fële mais ñan ñoo fay football mais mooy ñooñu nga xam ne ñoo doon football en Europe donc aujourd'hui pour man c'est un championnat qui est très bien compétitif parce que ñu doon football en Europe ñoom ñoo dem di football Sadio Mané ñoom Cristiano Ronaldo la ñuy football donc ñu doon football en Europe xaaral rek ma ñëw ñu doon football en Europe ñoo ne <clears throat> nga ma man wax xëy na ils deviennent vieux c'est-à-dire ñi dem foofu kii c'est des en fait des joueurs qui sont vieillissants mais aujourd'hui dans ce dans cette équipe que nous avons il y a ces joueurs-là yi nga xam ne yàgg nañ ñu ngi magal mais aussi il des jeunes donc il y a une mayonnaise qui en train de prendre. Ils sont pas beaucoup dans l'équipe. ñan ne sont boobu beaucoup dans l'équipe nga xamante ne am na par exemple dix joueurs yu nga xamante ne bon euh, soo jëlee am na vingt vingt joueurs yu nga xamante ne ñoom si campagne précédente bi bokkoon nañ ci. sur les vingt sept. waaw donc euh, bon c'est plus. que ça dañ leen war génne. non je dis pas je dis pas que. Mhm. Euh, par exemple xam nga damay joxe benn exemple. France mhm. bu mu gagné bu mu gagné mondial 98. Euh, mondial 98 après deux ans plus tard moom euro 2000. Mm. am na joueurs yu nga xamante ni joueurs yu bëre presque mm. boo jëlee euh, presque quart bi yëpp demuñu mm. euh, demuñu fi nga xamante ni participer wuñu ci campagne yu 2000 bi nga xamante ni gagné nañ ko euro 2000. donc loolu lu muy signifier c'est pas parce que yow joueurs yi ay champion d'Afrique lañ. Mm-hmm. que automatiquement da leen war a j'entends bien que si on a une bonne équipe il faut il maintenir ça que ils seront Euh, sous prétexte que ils étaient champions loolu laa bëgg wax. xam nga loolu laa bëgg wax ne dama la bëgg wax ne xam nga compétition boobu natt la bi nga xam ni c'est-à-dire euh, amuñ <clears throat> nu ñu koy mesurer ça dépend rek fi ko nit ki di jëlee am nañu ay campagnes yoo xam ne dem na et c'est valable pour toutes les équipes du monde. Mm-hmm. da ngay jël benn joueur bi nga xam ne benn Ablaye Cissé bi nga xam ni football sax championnat ba mu nekk. mais mu ñëw si compétition bi toj ko. c'est-à-dire donc mën nañu natt ni par exemple ñu man li ma la bëgg wax mooy. on a une équipe bi nga xam ni c'est un dosage d'anciens joueurs. Mm-hmm. et des jeunes joueurs bi nga xam ni. cette équipe-là a montré euh, sa capacité. benn mhm. équipe bi nga xam ne ba jëlal suñu dernier match amicaux yi même bu dee match Algérie bi xam ne Algérie daf ñu gagné 1-1 mais on a bien joué football nañu fi gagné Brésil c'est pas du donné. Mhm. donc c'est une aujourd'hui nga xam ne am na expérience am na jeunesse. mais comme am na ancien ancien ñoo indi expérience bi. Mhm. jeunesse ñoo indi xëy vivacité ak yooyu. donc yooyu yëpp la ñuy boole nag dem gagné ji donc je suis en train de dire que. quoi qu'on on a une équipe compétitive qui peut gagner cette CAN là. Machallah. Ah. Alors